on tient vraiment à, on tient vraiment à informer l'opinion publique par rapport à la situation qui sévit à l'hôpital principal. On nous interdit formellement d'exercer nos droits syndicaux. On ne fera pas. On se luttera jusqu'au bout. On se luttera jusqu'au bout. Cet hôpital nous appartient. Cet hôpital est pour les civils. Nous ne sommes pas des militaires. Si cet hôpital part par terre, sera à nous de payer les pots cassés te duñ ko nangu hôpital bi suñu ci teg on nous l'a légué suñuy maam ñoo fi nekk suñuy bàyyi nekk fi ñun xale yi nekk fi ko seetaan ñu koy yàq hôpital bi si yàqoo jëm te duñ ko seetaan suba nag suba vendredi vingt cinq juin incha allah rabbi si la suñu préavis jeex te képp kuy personnel civil nekk si hôpital principal ñu ngi lay woo nga jub taxaw ndax suñu lii nii duñu nangu ko ko yàq ndax bu suuxee ñoom dañuy dem si caserne yeeg si camp yi on peut les ñun fii la ñuy toog di laaj suñuy droit On ne le fera jamais. On ne fera jamais. On ne peut accepter que des policiers soient affectés dans cet hôpital-là pour le détruire. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, un regard, par rapport à la situation de l'hôpital principal. Monsieur le Président, ayez un regard par rapport à la situation de l'hôpital principal. bu ñu en tant que responsable di xaar ñu naan hôpital il est déficitaire du palais de la république on ne pourra jamais marcher jusque là. tollootuñ fa hôpital bi ay taux tubaab ñoo fi nekkoon ay nit ñu ñuul nekk di xeex ba ñu am suñu ngor ba ñu respecté ñu jox suñu liberté syndicale. liberté syndicale boobu ay nit taxawee naan la presse est interdite d'entrer à cet établissement privé de santé non loolu mooy li ñuy def dafa leerul hôpital bi li fi nekk nii ñun en tant que civil duñ ko mën a seetaan. hôpital dafa mel ni benn dañ ko jël jox benn entrepreneur boo xamante ni lu ko neex lay def danga koy suba ngoon di toj te hôpital te hôpital foog ñu xam ni état du Sénégal jox ko dërëm état hôpital principal mooy fay ay employés hôpital principal mooy jël en charge sa masse salariale un milliard huit cent yu koy état di jox annuel c' uniquement pour le budget de fonctionnement uniquement pour jàpp si hôpital nag am na loo xamante ni tey ñu ngi fi hôpital ngi nii tey hôpital mi ngi nii tey ma mi ngi si ay guddi gu bërsëgagul du ñu xaar nag en responsable ba mun na képp ci yoon ñu doog a xam ne hôpital wax donc ñu ngi woo monsieur le président de la république pour mu principal xool seen loxo lañ ko teg je vous